بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الإخوة والأخوات في الله نحييكم السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi gannaaw bu ñu tuddee yàlla borom tur yu sell yeeg melokaan yu rafet yi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi mottali yonente yi moom mi ubbi itam li tëju woon di julli ci moom wala yàlla julli ci moom comme ni mu tollu mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi ci yàlla maa ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu. dana jafe lool may teg ay waxtaan gannaaw sama sëriñ sama rakk Muhammad mun Hamina Ibrahim waxee waxam rëy ju no ji nga xam ne lépp loo xam ne baat koom la ci li ko dalee ca kaw ba suuf indi na ko ci waxtaanam waaye nag xëy na teraanga la ju ngeen may jox rekk may waxtaan ci xadra bile jàpp naa ne sax bokkuma woon ci yelloo woon di jël kàddu ci bërëb bu ni mel bërëmu xam-xam ak xàmmee bërëb boo xam ne Mawlana Ibrahim moo ko sank sanc samp ko ci xam ak xam la rekk waaye Oustaz Mounhamina jërëjëf xam naa ne lal tayal nga ma lu bari ba su may war duma sonn ak lu mën a am nag maa ngi nuyu xalifa bu mag bi li tax sax ma yéexe ñëw ca moom laa jaaroon ñuy waxtaan ndax moom sama moromu daara woon ñu àndalu yàgg bokk lu yàgg itam waaye Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom mooy ki nga xam ne moo sos béréb bi ci xam maa ngi fàttalil Mouhamadul Mahi lu yàgg ci keppaaru Mawlana Cheikh Ibrahim xanaa di ñaanal yàlla guddal fanam te barkel ab dundam rek maa ngi nuyu mboolem ay mbokkam yu jigéen ña ak ñu góor ña nga xam ne am na ñu ma ci ziyaare sax waaye ay sëtam itam ak lépp ñëpp ñi nga xam ne ñooy usrat cheikh al islam sama mbokk mi may présenté moom moo baax rek wax ci man lu ëpp loo xam ne sax day meluma noonu waaye ku baax mënul wax lu may lu baax naka noonu di nuyu famille xadimul xadra al ibrahimiya te ca bopp imam bi Cheikh Tidiane Ali Cissé nekk ca ak bu mbokkam mi nga xam ne mooy kuñ jox ndigal muy wax ci turu xadra bi Mouhamadul Mahi Cissé di nuyu waale mboolem muqaddamul baraka yu cheikhul islam ñi fi teew ak ñu fi teewul naka noonu wax naa maa ngi nuyu al imaamul akbar li xadrati mawlana cheikh al islam alhaji cheikh ahmad tidiane ali Cissé ak i mbokkam ak i waaye di nuyu mboolem doomi mawlana cheikh ibrahim ak i sëtam ñoom ñëpp maa ngi leen di beral nuyoo وخاصة محمد المحيي علي سيسي الناطق الرسمي باسم الحضرة maa ngi nuyu mboolem muqaddamul baraka ñi ci nekk yu Mawlana Cheikh Ibrahim ñi fi teew xataa ñi fi teewul sax ngir ngant mbokk yu góor yi mbokk yu jigéen yu tëdd yi su fekkoon du ndigal rek duma jéem a waxtaan ci béréb bi lee béréb yi ay boromi xam-xam yu fees dell béréb yi ay fuqaha yu ràññee bérébu ay arifin yu yegg te maa ngi cité sama mbokk sama mbokk daara Mouhamad Lamine muy Baba Lamine ak mboolem ay mbokkam Mouhamadul Aqib xam ne ñoo bokkoon ca daara ja ak ñeneen ci am naa u Cheikh Mouhamadul Qurayshi Mouhamadul Arabi ak doomi mbokkam ya doomi Cheikh Ibrahim ak doomi magam yàgg te ñu teew fi di ñaan yàlla mu wattu leen te sàmm leen ah, mbokk jullit li am solo moo di ne bëgguma woon sax jël kàddu ak kàddu gu mën a doon ci bérëb bile muy alxadra al ibrahima al musharrafa waaye bu fekkoon ne du ndigal lu jóge woon ci koo xam ne bu diglee mënuma wuuteeg ndigal la mooy sama mbokk ci yàlla di sama xarit al xalifa al thani di Mawlana Cheikh al Islam muy alxaaji Abdullahi Ibrahim Niass mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ma daan jox ndigal ne fu taalibe bàyyi daje waxal ak ñoom ak lum gàtt gàtt xam naa nëbbu na ci zahir waaye mu ngi ak ci baatin loolu ma ngi nekkoon 1976 mooy rek bi nga xamee ne Mawlana Cheikh Ibrahim dem na ca barsax Mawlana Cheikh Ahmad ibn Mouhamad Tijani waaye digal loolu nag xalifa yi fi jaar yëpp wax dëgg dañ ko wéyal nag El Hadj Cheikh Ahmed Dame Niass El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Niass ba tey jii Mawlana al Khalifa al Hali al alim al allama al Hadj Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass hafizahu llahu wa raa moom ak i mbokkam ak mbokkam yu jigéen yi fi nekk di ay borom yi xam-xam. ak ñu góor ñi ak i doomam ak doom yu mbokkam yi ñu ormal yi dama bëgg wax rek ak mboolem sëti Mawlana Cheikh Islam ak ay muqaddamam yi nga xam ne ñoo fi teew di ñu déglu mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi nu bokk nga xam ne dëkk bii di Madina dëkku barke la waaye dëkku xam-xam la dëkku bañ lu bon la itam ndax ki ko sanc bañ moo taxoon mu ñëw senc ko loola duma ca tellu duma ca dellu ca histoire ba waaye dama bëgg wax ne Cheikh Ibrahima moomu nag waxal nañu lu bari ci yonent bi bind na ci lu bari bàyyee ñu ko waxal nañu bari ci askanu boppam bind ko it bàyyee waaye du tere ma wax nag ne ngeen dégluwaat ma dañoo dem Banjul mu ànd ak Mawlana Cheikh Ibn Tidiane boobu mooy xalifa bi mu ne ma dama bëgg nga waxtaan ak ñun ci famille Cheikh Ibrahim ak lenn ca suñ maam yi ma ne ko waaw yéen dey duuloon ay wolof duuleen ay tukulóor ay arab ngeen te loolu bàyyi moo nu ko waxoon ba muy tagg sëriñam ba Cheikh Tidiane yi moom moo waxoon ne summa asli abdul ilahi wa antum asluhu nicma zaakumul abaau antumu abai wa dalika faxri antumu min daai lqulubi shifa histoire daf ñuy nettali ne dafa amoon benn shérif bu ñuy wax shérif muy Rida numéro deux moo ñëwoon Sénégal jóge ca fu ñu naan jabalul axdar ci Libi mu ñëw dëkk Sénégal dëkk Jolof indiwaale woon xam-xam bu bari daan ko jàngale indiwaale woon ay ñaan yàlla daan ñaanal ñi wopp ñi indiwaale alal ju bari muy dimbale way lompoñ ya ma ne ko Cherif Rida moomu dëkk na ci Jolof ay at joge ci réewu arab yooyu benn bés nag mu bëgg xalaat pour jàllu fa mu jóge woon ca réewu arab ya magu jolof yi xam ko ñu xalaat ci ni kii kat ak jàlloom ñibbi baaxut ci noonu ñu ne nañ def pexe rek mu toog fi ñu ne nuñ ko fi téyee ñu ne dañ koy may soxna rek buñ ko mayee soxna rek mu toog te kuñ koy may nag na doon na bokk ci doomi buur ba jolof mooy dawus dawus jëlin kon nag mun xamee nga déglu say maam dawus jëlin moomu moom la ñuy wax Zeynabu Njaay bintu wijji silla buy Njaay doomi wejji Silla ak Dawus Jilin Njaay kooku moo di seen maam Zeynabu Njaay moomu nag moom lañuy tuddee Njaay la Ñas li indi loolu daf ko defoon mu nekk ab jigéenam xew bu am mu di ko ci taxawal moom Njaay la Jayla Ñas kon nag sant ak Ismaayla Ñas foofu rek la jógee waaye duwul yéen seen cosaan du seenu sant yéen kay yaakaar naa ne njaay ngeen sant bu fekkee dañ leen a seen maam dawus jëleen kooku njaay la sant bu loolu amut ñu askaane ci seen maam kon ay dara ngeen di sant askaane leen seen maam rida numéro 2 historien yi bind leen bu baax ci dégg limay may wax usratu ibrahim njaay la ñuy sant buñ ko yóbboo ci seen maam dëwës jëlin njaay walla ñu sant ay dara buñ ko delloo ci seen maam rida numéro deux kon ñi nga xam ne mooy aylatu dara ak baatu dara fan la jóge baatu Haydara ma ngi jóge ci xareb Xaybar bi nga xamee ne imaamu Ali mu ngi léewatoo jàmbari yahud ju jooju ñu naan marhab ba ñu janoo ku nekk di tagg sa bopp marhab ne qad alima alxaybaru ana marhabu shaaki silaah mujarrabun batalun mujarrabu waa xaybar xam ne ne man may marxab jàmbari yahud bu mag bi man may borom ngànnaay yu ñëw yi maay jàmbaar jaam expérience ci xeex imam Aliyu ne waaw waaye ana ana alladi samani ummi درغام آجام وليس قصورا man la sama yaay tuddee woon Haydar gaynde te loolu danga ko xam ca kanam kon mu ngi mel ni ku nekk bàkku na wax ki mu doon kon baatu Haydara foofa la jógee mbokk yi góor yi jigéen yi taalibey faydu tijaniya dama bëgg a wax rek ci tënk ne Cheikh Ibrahim moom mu ñuy fàttalil fu nekk yonent bi sallallahu alayhi ci waxam ci ay woyam ci ay taalifam ci ay bindam yoo xam ne làmmiñ lottana ci indi ko xalimba lottana ci matal bu fekkee noonu lañ ak moom balaa muy dem mu bind bàyyeenu ko kon ñun li ñu war mooy nu jéem tudd ak fàttali ay taxawaayam ay ay jëfam yoo xam ne mu ngi jublu ci defar nit ki ak société bi ñu jëm ko roy hada cheikh ibrahim ربى شبابا وشيوخا وعلم أناسا وأجيالا وجبر, وجبر الكسر التي في المجتمع من جهل عن الله وعن أنفسنا مولانا الشيخ إبراهيم يرنا عنده بكناچا جانغلنا أي مك defar na ay nit ay génération jàng na ay damm-damm yu nekkoon ci société bi muy damm-dammi réer réeree seen borom waaye réeree seen bopp itam moo taxoon mu wax ne man nag li tax yàlla indi ma fi mooy damm-damm yooya ma jàng ko awjadani rabbi li jabril kasri fa innani wakiilu sirri sirri mbokk jullit yi samay mbokk ak dongoy Mawlana Cheikh Ibrahim na ngeen xam ne ki ngeen topp te ngeen roy ko muy Mawlana Cheikh Ibrahim xam ko am na solo ndax moo tax ñu mën ko roy ku yelloo ñu koy topp la waxuñu benn yoon toppaleen ma lim ñu daan wax daal mooy jàngi leen ngeen def nit ñi ñu nekk ay nit wuuti leen xam-xam ndax xam-xam mooy ilimaani mbir yi woy na ko sax alilmu amri huwa imaamul amali kama ata an taaxa xayri rusuli Mawlana Cheikh Ibrahim ay sëriñ ak i boromi xam-xam ak ci nit seet seedal nañ ko loolu na ca sëriñam ba gis naa fu mu bind ne lakum ila axiri moom moo ko waxoon ne ko warista ani cheikh tijaani xilaafatan wa inni lakum fiha anusulakum nasa cheikh sukayri ja mu ne baay doon na nga xilaafa jëlee ko ci tijaan man nag duma ko wax rek waaye dama leen koy bindal Sukayri ja alim la woon bu mag xamoon na sharia xamoon na xaqiqa ndax déggal ma ngi naan laysa fi lkutbi wa dafatiri ilmun innama al ilmu fi suduri rijal ak leneen mbokkan xam mbokk kon nag taalibe ak ñi topp cheikh bi lay muy cheikh ibrahim am nanu ab sëriñ bu yàlloo ñu koy topp ci ay jëfam yoo xam ne yépp sunna la ay jaamu yàllam ay waxam yoo xam ne yépp yu jub ci loolu nag lay wax ne boo dégloo ay waxam nga xam ne kii ku xamoon ca borom lu bari la ida dahara leyla fa li ayunun wa in hiya naajatni fa kulli masamiu kooku mooy saahibul fayda tijaniya bi nga xam ne sóob nañ ca ñu bari ci ay góor ak jigéen nee suma su ma neexoon faydu bi daj àddina yépp waaye yàlla moo ma sant fii ma koy yemale law shi'tu amma fayduhu albasita wa adraku asraarahu almuhita mbokk jullit yi ñu bokk yàlla la ma bëggoon al-usra ma ne yéen ci taarix seen sant ay dara rekk lay doon walla njaay te expliqué naa ko seen maam buur ba jolof dawe si jëlin mu jëlin njaay kooku moo di seen maam li may wax boo delloo woon ci internet bi nga tàppee ñooñu naa la wax an ci ban jamono lañu dundoon ak ñan la mbokk yi noonu lay gàttalee samay wax muy sama habitude wante li ñu bàyyi Cheikh Ibrahima layoon biir mooy ñun ñëpp nañ jël tariqa tijaniya di ko pratiquer dénk dénkuñu ko de waaye daf ñu ko laye biir waxul wasiya dafa ne nasihatun minni ila ixwani faltumsiku tariqata tijani tariqa abdulfadli wa ridwani usisa bi sunnati wal furqaani mbokk jooju kon nag fa alayna asamu wa taa nuxayikum maratan uxra waxayi الأخي أخي الصغير الإمام الأكبر محمد الماهي سيسي أطال الله بقاءه وحياته وأيده بالنصر التام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته